def naa sama déclaration léegi nag commissaire nee na ma toogal te déglu ma incha allahu rabbi dinaa la woo. man du ma développé mais comme ñoom ñoo la wax ah il est l'heure de développer fii daal problème bi xoolal ma foofu ndax cakas ñëwul day lakkatu si fleur yi di duul. ba nga demee nag bay def sa déclaration. seen gan googu xaw ma ñëng xaw ma boole nga ko ca. ñëng ma waaw si gàcce mu ngi si ndax man wax naa ak moom bu ma ko laajee tamit laaj naa ko na ko Soda yow lii lii yaa waxoon na doo dëkk ak moom xale bi dem na waxal bu fekkee dangaa def mu ne deful ma ne ko waatal mu ne duwaat ma ne ndam mu ngi si gàcce mu ngi si. ñëng gan bu fi ñëw coow li yoonam ñëw ci waxu ci taxaw ci liiw ci. ah yow kan mo la wax ñi nga takk na ci yow kan mo la wax yow ciow li ñi nga loxo ñi nga ci ba nga dem di ko wax maire bi ma moom dama xamee ay caaxaan man du na caaxaan kan man man bolo man la man nit bolo la damay bolo man man luma la wax dafa fu ma ko teg yow ñëng doo bàyyi ci yoon yow waxuma yóbbu waxuma sax yóbbu ci yoon waye gis nga illaahi dinaa la def loo xam ni. loo may def waaw waaw def def kat. dinaa la def loo xam ne def kat nga. ñu ngam dinaa la def loo xam ni. ñu nga def kat nga. mooy li nga def jàpp bu mu génn kër gi. loolu man man boobu ko defee du ma génn. ndax man damaa takku avant man takku naa bu yàgg def kat nga yaa ko waxal sa attaqué naa ko. dinaa leen di. dégg ngeen. ma ngi taxaw ni attaqué naa ko. këpp ko nap ko muy dof-dof la. nan ma man kay ci gis na quoi man ko koy wax. man man man man ko yee. jabu ya ko genn keur gi. moom la mu nan ma man ngay accuser. nag ma moytu man ko waaw def kat nga. def kat nga mo tax kanam waxuma lol sax yewi xam nga luy problème ni nga ko attaqué ma ngi tok fi deg ko bu ko may jàmm. waxuma lol dama ne. waaw cas est-ce que ñu ngi ci la. est-ce que loxo ngi ci attaqué naa ko de mais yow non dama lay wax rek tëb yoonu police mun na ci am yoon waaw parce que su dee li may wax wóoru ma man maa fay des déggoo laax yow police gendarmerie douane ak fu la woo demal xaaraa def ah demal fu la man di woo demal wa ñi ngi ah ñi ngi kër gi bëri nay coow de man waxuma loolu soo am na leen yoo xam ne sax boo ko mënee yow war koo mën a jomb. ci lan. waa ji yow kon Soda yow fecc bu bees bi xew léegi da koy fecc. ban fecc bu bees laa fecc ban fecc bu bees nga ma gis ma fecc man de ni ma bàyyee woon noonu laa toogee lan lan lu xew. Soda Soda yaa ngi suuf de. billaahi yaa ngi suuf. fan nga gisee ku nekk ci problème di su bàyyi sa yooyu man ah, waxuma loolu. xam nga lan laa la wax damaa bëgg nga déglu ma dama laa yónni woon ñëw nga. wax ma la wax ma li la indi beneen bi ci topp mooy damaa bëgg nga wax ak teg sëñ cuq sëñ ratt na ma ba ma jeex tàkk tàkk tàkk tàkk bërki démb laa maag laay fii laay tuuti mu dóor ma. kon kon man suuf bi may wax te yaay suuf. nan la suusee. ci ci yow la kalaate. nan la kal la. kalaate. dërëm laa tase lu amul lu mu waxul. nee ko nee ko yow li ko wax joxar bi ko ci gis nga problème bi ne si moom mooy booy wax dafa am fi say wax day riposte si ñu këj. mel ni du moom waaw lool moom def na ko ba pare di mel ni kuy lox mel na kuy loolu def na ko non moom kanam gi ni mu ko wane da naan kii deful dara dana daa am ay rab de attention lat dafa am rab yu bu ma taan daan da nga koy da nga koy takk ba pare gek ko waaw am rab nga indi ko ci gi yooyu wax naa ko ma ah ko wax soodo loolu man nga koy wax parce que soodo yooyu du ko lijjanti ah, ah xam nga ne dafa am rab woo ma nga wax ma ko ma génn ko kër gi bilaahi dafa am ah? rab yu bon de day daanu daanu yoo xam te ne gis nga fi nii boo leen wax ba yaramam tàng bu la dugalee. ko non man kay di wax na bay dëkku ba naan ma nag ma may toog yooyu du lox. boobu nag mënoon ngaa arrière fi nii nii nii mais da nga war a arrière ndax moom bu la dóoree billaay da lay billaahi. ah billaay da lay for de. musta dóor nit te ko maam gaañu gaañu wala wala wala yàgg lool sax ñaar yooyu rek. a ah, mais yéen ngeen bàyyi ko mu toog ci kër gi léegi wérul da daan moom dafa dox ba dugg fi di wax ah? naa ko sooda booy for nit xoolal ni nga koy ma xam naa ko man nag tëkku naa ko nee ko da ngay génn kër gi bu ragal de waaw loolu wax naa ko nee naa ko kër gi doo fi toog mu may muy riposte naan ma kër gi moom moo ko laay ko moom man bala maa dee koo ci ne génn rek mu ne kër gi laay ko moom mo ñëpp koy wax sax même yeesaa nga ni ma génn mais kër gara te nee na ma waa kër gi ñoo ko wax moo amul lu ma waxul yow foofu ngay waxee Oh, mais fan lay waxee feneen. yow dërëm mii di jaay yow dërëm ma ngi dox si sa sax yow baa waxoo dërëm dara. man yow xam nga ma man. dërëm si sax xel mi lay dox de xamul dara xam nga nan la ñuy def nii dañuy dute nii xola di dute xola nañu wax ndànk sama baata ngi jóg sax damaa tiit booy wax del gestu ndax gis nga kër gi wóoratul xoola day dute day dute de fexeel ba nag bul tiit wala nga ragal ba wax dara. man ko def de. man ak yox yox dama koo dama koo menacé damay wax ak yow dama koo menacé bu tàng wax ak bandi la dama koo xam maa bandi daf maa xamul billaahi maa ko gën bandi man màggatum peegar laa de bés bu di nga dugg de man duma nekk ci naaj bi nga ne ci kër gi de kon nag bu defal attention bu baax li ngay wax na ko xam la ngay def na ko xam dama ne man soo yow lay xalaat man bu desee ci man rek kenn ñeemu mu taxok man dima naan ma 22 eh. yow lay xalaat gisee ko ah maan yow sama kanam ni dañ cee gis ragal c'est que problème bi nag mooy cuq waaw dinaa wax moom parce que li ngay yow yow li ngay gérer cuq yow ci pet man loolu laa xamul lan la cuq ratt na ma ba ma jeexal tàkk sama natt yi gi naa jox ko sama or ba ma dese woon jaay naa ko jox ko keroog bitig balaa dem desutu dépense bi laa jël jox ko ko ba pare nag coow baay nga gën a jëm ci kaw waaw ma ma ne ma ne yow Soda tax nga xam cuq yow waa kon yow jëflanté ak cuq do ñëw ba ci nday mbi légui waaw yow mom yow da nga tukki man tamit ma jaxlé nga dem kër gi di melni sabar bu tass nga ni ko xaaral ba tukku ñëw nga ni ko xaaral ba tukku ñëw mooma booleeg ah, yow ndax man dootuma ko jox dërëm tak coow mi moom na ko fay xaalis da nga jox ko ne gerbi, ah, da koy fàtte yenn saay mais nag xoolal guerre ba ngi nii bu ragal guerre bi geeral guerre bi ma nga jaay ma guerre bi man kay buma démé ba ci sama lay jaay dédi man sa duma ko jël parce que damay mal place mais dama ni la yow it da ngay rek. affaire yi non da ngay raxu rek. yow lun la lii nga raxu. non xam nga da ngay bàyyi raxu bi nag tey tey enquête. ci mal placé mais dama ne man maa ngi ci sa ginnaaw pour l'instant. guerre bi fu yem nan ko fa fekk nan ko attaqué diñal ko ndax tamit dëbb doomi jàmbur la. dëbb doomi jàmbur la. dafa ñëw ñu naaw taal ko. naa def li nga wax. dërëm amul solo. bul bul invité bul ma sa am xel sax di ragal. dafa mel ni yow da ngaa commencé mel ni kuy teggi de. na ko parce que ñu ngi ku ko coqati gis as lëf bandi yi mag a mag yi sax pour nga pour ñu wax waaw moo tax enquêteurs yi waxuñu dañuy ut koosu bàtt bi def ko ni dat dat dat bandi yi bañ a wax yu maam ñoo xam ne dañuy bañ a wax boo keppee si ñaar ci si si affaire yi gis bu ñu bañee nga dóoraat dañ naan la baatale ibra la ak dañ na ko fay te dootuma ko jox dërëm nag ndax man jeexal naa jeexal naa tàkk te nga def attention nag ci biir kër gi gis nga lii xeex la te ku sa bopp baaxul nga gaaw a daw gaaw a ragal da ngay feeñ te gis nga feeñ gi ñuy feeñ nii xam nga li ci xaj maa ngi yow xam nga li ci xaj lii ñu def nii xam nga xam nga lan moo ñu ciy fekk bu feeñee. ma ne xam nga lan laa lay xamal. Ah. xaj te xaj. xaj ca man bu dee man rek du feeñ ci man yow nag lay ragal man. man yow rek laay ragal. man gaynde laa. li ci des bàyyi ko ma <laughs> man ah? man man. man ni man du ma sangu xale. ju ragal nekkul ci man sama ma xoolee sax xam ne man li ma def nii ku amul fit du ko def. te danga maa xamul rek. man man yow man dinaa ñàkk sama kër. ba dara dul dara xale bu ndaw ne cëppeet jaral na ma lii. te maa ci yoon xam nga ni man yow rek laay jàppale du ma ci leen. bo dof dof lolu bamou mu damay jël sama sac dal di gàddu ko aw ni nga defal ne day yombee noonu wuy ma sooy wax del xol gauche xol droite so amé loy wax téléphone sax woratu ndax dañ ñuy déglu yow dal nañu melni kuy jouer film bu ñu nekkee ci kër gi dal rombal ma romb bu ñu weetee rek man na la def si ñu waxtaan man woluna sama bop te sama mbir xamna fi makoy tek chum sama góor damaa yàgg ak moom nag maa ko yar sama doom maa ko jur mm-hmm. ah <laughs> wala ah, kon baax na korooj nga korooj waaw waaw damaa yàgg nag <laughs> wala xam korooj nga waaw mi ngi noonu egg ci biir ah. noppaliku lu la dugg ci daal moom ah. moo gën lu la cóll jeex na tey sama xarit bi <laughs> ay ay waay boo ma suruxalee de di nga defe ne hmm. da ngeen di gis nit ne tepp toog rek ngeen xam li ma sañ sax xamagu ya leen ko tuuti laa leen ñamal ngeen di crise man man man xale bu ndaw dina nangu sama jëkkër ma toog di xoole xanaa man damaa dof Ini lama aku bëggoon nyuwah tan jamm la yow depuis lor bima fi ñëwee ba léegi sa papa ak sa yaay ni ñu mel xanaa gisoo ko dama gis boobu ba léegi waxoo ci defoo ci dara te am na loo xamante ni nii waru la lan moo tax nga leen di seetaan. Yacine da ngay da nga da ngaa yéex a jot ci mbir mi rek mm. waaye lii yàgg na de. Mm. Ah te bul japp ni waxuma ci parce que mënuma dëkk ak ñoom ñaar ñëpp problème yi di am ci biir kër bi ñoom ñaar ñëpp ñu jurum ma may tok di sétan xanaa wax ba son yaasin dama waxa waxa waxa wax ba son te ku nekk li nga mat bëgg ko bàyyi fi lek dagul te nag ay mag lañu man sam papa nim ma juré non la sama yaay juré fu ma danga maa bañ kee nga gën a bëgg ci kee nga far bu ma waxee kii danga maa bañ kee nga bëgg kee nga far à la doo xam fooy positionné wu te nag ñoom ñaar ñëpp kilifa lañu mun a ma jàpp kii bàyyi kii wax naa de wax naa lu ma mën. doo toog nànk bala ngaa toj xale bu ñu toog rek nga xaap xaapaare lu ngay toogee xaap xaap yi nii. Jas. Jas yow xanaa damaa def ni danga maa fàtte danga maa fàtte wala. la la la la léegi. ah loolu la ma la fàtte loolu laa fàtte. Jas yow xam nga ne man maa la yar sama jarbaat lenk nga ñoo nekk loolu dëkk ba xam nga man lu ma capable ak lu ma wala. xam naa ko kay loolu moo ok ñu jógee ndoo fële si dëkk ma may sa nijaay lenke sa ndey nàmp yàbbi jox ma ma namp am na yoo xam ne yow mais nit amul dul mboqam man yaa fi sama mbokk fi boo deewoon léegi man la ñu njëkk woo man it bu ma deewoon noonu nonu wa affaire de bi do ko bay nga wax ma nga wax ma xam nga bay affaire de quoi nga lan laa bëgg rek nga jox ma cër bi nga wara jox lima mom nga jox mako en tout cas de man mom barki dem rek ci muju ñom ñaar ñëpp ku ci nekk wax na ak yow mais ku nekk fi nga japp nga japp te amna lo xamanteni ni nii rafetul ndax bu dul dara njaboot gaangi ci kër gi te dafa am lo xamanteni dafa ñaaw papa dërëm moro jël xalé bu ndaw di ko xamni koo xam la lol c'est normal sama ya so de gisti bopam mom moom comporté woon nii am na xam tamit rafetul. wa mi Yacine xam nga tay ji sey mom yalla mo koy dogal te fum ko tudd rek foofu la ram te tamit euh, sama papa gor la amna droit tak ñent jabar mbëggeel amul âge donte man neexuma mënuma ci dara mais tamit kilifa la te xamna bu baax limuy def te diine may nako ko sama yaay mo fiir problème bi kagn moy xam nga lan ki mu tak liko ko ci kër gi te sama papa ñaaw ndiot ne sama yaay setu ci man lolu moma préoccupé lolu moy sama problème te tamit sama yaay depuis bobu nëbbul ni xalé bi bes bu seysé lu am jamm sama yaay wax na loolu xale bi sëy si yàggu fi dem kenn xamul fu mu dugg kenn xamul fu mu jaar. man sa nijaay lekk la lan moo waral ana lan moo fi waral laa xamul yow ngay yàq sama dër biir kër gi di ma waxal lu ne mel ni ku ma umpale yow sëyi gone yi Euh, euh, gone gu ndaw gee euh, dërëm man lan moo ci sama yoon lan moo ci sama yoon ba yow nga ma ci tuumaal di ma ci waxal wax ju bon ju ñaaw ba ku ne di ma dogaale di ma wax naan ma waxu gone gi sëyu gone gi sëy lu sama yoon. dama dama ni dama ni loolu setoo si yow loolu li ñu ngu ñu ŋaññee yow yow loolu setoo si yow xam naa la yow maa ngi yow xamante nañu yow loolu setoo si ndax ndax ndax collaboration yooyu nga def ak Soda. nu nga collaboré ak Soda boy bi ñu naawtal ko yow loolu loolu mënoo seeset non non loolu mënoo seeset parce que yow parce que yow bi bu nga collaboré ak Soda la la la dem lañ ko naawtal mu dem ko xam nga yow loolu mënoo seedeñ te xamante nañu yow leer na leen man yow xam naa la yow da nga yàgg bëgg affaire ku courtier courtier kaay ma wàlla sëriñ kii moo nekk kamfoore ko moo gën a ki mo gëna mëna joxe bitel ak ngeer ak saxaw yo loolu xam nga ko danga ko yag bëgg parce que yow gënaw mëna ci dali tax ma wax la ko may dañoo xamante ño bok fi ñuy joggé xam nga ma xamna naa te yow xam nga ni ma xamna la man li ngeen di wax ni loolu lay bëna dégg yow sama yaay moo la jur xam nga ko bu baax yow xam nga ni yaay sooda capable sax def lu ndaw laa la wax weñ yi di naaw sàkkantuma la ak nit wax day rafet am na yoo xamante nii rafetul de li ngeen koy wax nii nag bul baalu leen ko ah parce que yéen koy tooñ. waxuma ko de. Ah, nit ñay wax ak sama papa. te sama yaay tamit dëkku na xale bi man xam nga sama yaay bëgguma dara luñ koy wax wala luñ koy jëfal wala luñ koy mais tamit doomu jàmbur la yàlla rek xam néew ma sama yaay def néew ma déw def mais yàlla rek a xam mais xale bi génnam ci kër gi doy na waar te kenn setu ci te kenn nelawul yaayam nelawatul sama papa day dox ni rek léeg mu kaf léeg mu ki mais xel mi dem na lol tamit nit ku ne nit nga nañu waxante deug dara xajul ci mom en tout cas dal gënal waxtaan ak sama papa mu bayyi lepp mu sedd njabu yalla ko yobu te gëm naan dina ko wat nit day nangu ndokal waxtaan ak mom rek mo gën. yalla ba dina dina dina dinañ wax ak mom rewit lo ci mën nga japp ci. yow bëgg nañ la té wa amna fuñ la tek jox nañ la cër ñoom parce que voilà yow xam nga sama papa xaritam nga. Mhm. sama yaay moom kenn waxatul. waaw jaaral ci côté bii rek ma jaar ci côté bi ah, te ñu ñaan aussi xale bi ñëwaat rek. incha allah jaamu dellu si rek moo gën. en tout cas daal wasu si àq nga wax ak ñoom ñu nekkaat si jaamu. Mhm. loolu daal laal moom ah, ah. yi moom yaa ngi ci dara de ci ci yan loolu moom du ma ci wax baal tooñ. ah. <laughs> ah baax na.

yow tee ma rey sa ndey benn yow tee. waay yow ma xam xam naa li ngay def yëpp ma xam yow. xam nga commencé dëkk xam nga commencé dëkk xoolal billaahi leer na ma bir na ma dem nga ñaari nit village ñu dee sur le coup. yaa dëkk man nag man nag billaahi fande laa dem uffa teeratul naan ko fi ne piki sa duma dugg. fekkene da nga bëgg def comme ñu nga def ñooñu bu yeboo nga commencé man man ama gayam man bu yàgg laa naan tu billah laa. say da ngay caay. caayanu ma damay ataaya xam nga commencé nga jaddi jaddi. jaaral ndem fii jaaral jaar Cas. Cas.